xoññañal mun na ci indi ay mun na leen ci defendre Pape Alé Niang a toujours mené des combats de principe sa patron deux heures quinze minutes la toog ci plateau Pape Alé Niang le 31 euh, décembre 2011 boobu noonu Pape Alé Niang journaliste la woon wala militant la woon ah léegi da ngeen a yor nguur bëgg def naka sudul noonu mu waroo ci yéen ak xalaat ngeen bëgg koo jël di ko taf wala di ko dendale ak ay parti politique en fait foofu la foofu la manipulation bi nekk te nit ñi war ci am xel yeewu ci senegal yeewu ci bu ngeen jaaree fu nekk mënoo leen ko ger ngeen jaar fu nekk mënoo leen ci moom dara ba mujjee koo jël dugal ko ci kaso léegi nag loolu doyatul da ngeen a am beneen mission mission beneen bi ngeen am moy dañuy dem jaxase ko ak askan wi dóor ko ci kaw askan wi wane né lim doon def du journalisme militantisme la won mais Moustapha jaxaté pap Alé lim doon def 3 ans yi lan moo tax amuloo fitu génn interpeller ko laata moo dugg fi mu fi mu c'est de la malhonnêteté intellectuelle c'est de la lâcheté parce que nit bu féké da nga né gor nga gor nga nga am loy reprocher nit muy yeewoo ci rew mi ngay yeewoo ci rew mi nga koy gis xam fi mu dëkk boko soxla ne carte ne ko carte téléphone mais bul bàyyi ba mu nek dans les liens de la détention ngay wax loo naka sudul non loolu du am fit du am ngor te yow xam nga kan moy Pape Alé xawma kan moko ko xamul mais yow xam nga kan moy Pape Alé Niang yow mustapha Diakhaté mais nak sa position bii nga amee tey nii fas à bon nombre de personnes mënul bett kenn xam nga lu tax mënul bett kenn Moustapha Khalifa Sall daf la jël ci maire bu dakaar nga ngay liggéey ci maire bu Dakar yow Khalifa Sall gënal la sa noyyi gi ngay noyyi mais biñ ko jàppee ci affaire u maire yi de dakaar lan nga Khalifa Sall sur les plateaux de télévision et les sites internet ku def loolu Khalifa Sall dama jàpp ne boo ko defee keneen war na metti Dembo Njaay imam Alioune Badara ndaw dafa génn àdduna nga wër télévision yi sosol ko lu ne weng ci réew mi maître Moussa Sarr di avocat dem ci plateau de télévision yi weddi ko ba mu set wit ay njabootam weddi ko kuy sosol ku dee kuy dund mat ta wax te ngeen yéene ko dee kuy sosol ku dee ma kuy dund matu la wax

ëpp leen ko judd ci réew mi bu ngeen yaakaaree ne nag da ngeen ni saaga ñeneen kenn du leen tontul yéen ngi nax seen bopp pap Alé ku ko saaga ci réew mi ñu tontul ko et je prends toutes mes responsabilités ak lu ci mën a xew parce que nag réew mi ful ak fayda bi ngeen am yéen ak audace ak liberté bi ngeen am di wër plateau télévision yi matin midi soir di toog di wax ci nit ñi naka sudul noonu saay so leen paré rek abal leen ñu fulle bobu ak fayda bi ak audience bi ñu tontu leen ni ñu wara tonto parce que rew mi da ngeen wara xamne sen nday yi donnu ñu ko donu leen ko sen nday yi donu leen ko sen yi mi dama ne donu leen ko sen nday yi donu leen ko sen te lima leen ni waxat rew mi wul 2012 te du jeex 2024 il faut qu'on se respecte dans ce pays te Moustapha Diakhaté yow euh, tu devrais être la dernière personne à s'exprimer comme ça sur Pape Alé pour la bonne simple et raison que yow xam nga ko bu baax mu xam la bu baax te dama lay wax lu leer nga xam ko moy man limay def ni ak yeen

parce que nak rew mi dañoo toll fo xamantene li wolof di wax rek ku dof dof lu bay mbam mbam lu nga dof dof lu ba law ci kawam dama ni momu len rew mi donu len ko ci nday donu len ko ci bay ba tax ngeen wara meuna tok ci plateau yi di saga ku len neex ngeen tek ko fan ngeen tek ko fan ale ëpp ko mbokk ci rew mi ëpp ko judd ci rew mi ku ko wax naka sudul noonu sa parce que dang ko baye ba mu won la ginaaw te man nak je prends mes responsabilités def li may wara def ta xaaruma ci conseil yu kenn xaaruma ci avis yu kenn parce que réew mi nit ñi dañoo japp ne dafa am ño xamantene ño wara ngab radio yi di wax am ño wara xamantene dañoo wara nopi di xaar lolu moy jeex ci rew mi mais Moussa Diakhaté yow war nga rus ci sa bop trop war ngaa am gàcce ci sa bopp parce que réewande dafa jekkul sax ci gone sakkamtumaak muskàllaf réewande moo jekkul ci gone waxatuma la ak muskàllaf dafa jekkul ci muskàllaf ci gone sakkamtumaa muskàllaf yow war ngaa am gàcc ci sa bopp nga am ay doom ñuy yéewoo ci réew mi amuloo beneen liggéey Boudoul, répondeur automatique quelqu'un comme toi qui a été le président d'un groupe parlementaire d'un parti politique au niveau de l'hémicycle n'est que député à l'Assemblée nationale d'un parlementaire tu es devenu un répondeur automatique et puis téléguidé faites qu'un répondeur automatique spontané ça nous ñu mais tu es devenu un répondeur automatique téléguidé chien de garde yew la fenn bu dara xewé rek ñu yewi la ne la demal mbow ci ki demal mbow ci ki nga wër plateau yi melni ni robinet mbedd dama ne la réew mi day lool day jeex fi ci réew mi de fi ëpp leen fi làmmiñ ta làmmiñ du lek moromam ta ñorul il faut qu'on se respecte dans ce pays nit ñi bu leen joxé cër cër bobu nit ñi leen jox da ngeen leen kay c'est ça la réalité Vous pensez que vous vous permettez un peu de, pavaner sur les plateaux de télévision et les chaînes, de, chaînes euh, sites internet pour dire tout et n'importe quoi. am leen jom am décence am dignité sen bop, xam ne ay muskalaf ngeen dara waru jaral ngeen porter ay combat yo, xamante ne bu du le un ancien président d'un groupe parlementaire dans l'hémicycle qui est devenu un simple répondeur automatique. C'est la honte. ku la ni que plateau di wax sax ñu yow en fait c'est que vous en fait parce que da nga que da nga ci ko ba la simple maintenant haine bobu ngay développé cette haine viscérale mais ci ñëpp nga koy xëpp man cette la ci ben site internet ñu poser la question ne la Cheikh Omar Diagne ak Abdou Abdou Karim ñi ci bi ndax li ñu wax ci waxu Imam nga ne damay ñaan ñu ci ci yow sax nit sax parce que tout simplement man dama japp ne même sa non bi nga xamantene da nga ak mom ba aduna ñëpp xamne da nga non ak mom doko ñaanal kasso doko ñaanal kasso ci yow la mësa déggé ci julit ku ne julit la akkan ku ne julit la di ñaan doomu adama ni mom mbokam ni mom sénégalais ni mom yag ci kasso ci yow la ko mësa déggé ci yow laa mës a gisee nit ku génn àdduna nit ku génn àdduna nga koy sosal ci yow laa ko mës a déggee dama ne Moustapha dara ñoru la yow ak sa yeneen xeetu politiciens yi ngeen di àndal dara ñoru leen lu dul ay privilège bëggu leen réew mi gëmu leen réew mi dara ñoru leen lu dul ay privilège seen bopp moo leen ñor ak seen poos qu'on arrête dans ce pays. Vous ne représentez absolument rien dans ce pays-là. ban métier à part politique à lañ la le politique politique du métier nit da un métier d'un ko comme ko calco def politique là je suis d'accord Goudi nous à part aller sur les plateaux de télévision di ya que le ni nit lu xew ñu yeewee la nga wër site internet yi lan moy sa liggéey leneen lan ngay liggéey il faut qu'on se respecte dans ce pays te muskalaf bu amé fulla ak fayda moko may bopam li ñu nekk ni nak diko dox par rapport ak Pape Alé kenn mënuñu ci divertir ak ko mën mënti doon kenn duñu divertir bul sonno kenn duñu divertir dem leen ci plateau yi yéeg leen ci jaww ji créer leen fa plateau toog leen fa takk leen seen ay rajo ratatati leen kenn du ñu divertir li ñu bugg a def dañ koy def plan bi ñu lal di ko dérouler dañ koy dérouler sur dëru dérouler ko un peu partout kenn du ñu divertir personne ne peut nous divertir réew mi donnu leen ko ci ndey donnu leen ko ci bàyyi ba tax na lu tax ngeen lu leen neex ngeen wax nit ñi lu leen neex ngeen wax nit mais non arrêtez à un certain moment donné parfois, ça me, fait extrêmement rire parce que tout simplement, tu vois ce gars sur les plateaux de télévision, mais di wax lu et en dessous tu es ami avec la première dame ñun xam nañ ah. tu es contre le mari mais tu es ami avec la première dame dama dafa jot dafa jot sénégalais opinion sénégalaise nous ñu ces politiciens véreux là manipulation yi nga xamantene dañ koy def jëmale ko ci askan wi di wane ne ñok diw et que par contre taison top top, nga lo xam fenen ñëw netaliko il faut qu'on se respecte dans ce pays yéen a ngi lang ak ay sàcc yoo xamante ne dañoo jël les deniers publics Pape Alé Niang li ma leen ko waxee woon laa leen koy waxaate de sàccul alalu kenn pour dem de ci kaso bi sàccul ay deniers publics du da nga ne di tuer membre de ce parti là au mës nga dem ci plateau télévision ba wax ci ñi nga xamante ne ñoo sàcc alalu askan wi of nag jàpp leen noir sur blanc wax ci yaa ngi làng ak ay sàcc yoo xamante ne dañoo sàcc alalu askan wi wax leen ci bu ngeen yaakaaree na Pape Alé amul mbokk ci réew mi yéen a ngi nax seen bopp gënoo leen ko dëkk ci réew mi ëpp leen ko judd ci réew mi ëpp leen ko jaar-jaar li mu def ci réew mi defoo ko vous pensez que les ñi dañ leen di bàyyi nii rek di leen xool c'est parce que voilà yow le diw ngay dem ci plateau télévision yi di saaga nit ñi gratuitement loolu lay jeex de loolu amatul fii de cette sorte de manipulation tout azimut sur les plateaux de télévision et les sites internet day jeex moom leen nit ñi war nga am gàcce ci sa bopp nag ndax muskalaf bu toll ni yow lu mu dem ci plateau wax ko aduna yëpp dégg ko bu ngone nit yéeg ñi yéeg weddi ko devrait avoir honte réew mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk képp kuy sénégalais am nationalité sénégalais mais ci réew mi nga bokk réew mi ñun ñëpp ñoo ci bokk yam sénégalais yi ñoo xooloon ba jàpp ne war ngeen a war a yor réew mi ñu yëkkati réew mi teg ko ci seen loxo senegale yooyu bu ñu demee mais sénégalais yooyu dañoo amul droit am regard ci li nga xamante ne moom la réew mi di doxee wala yéen dañ leen war a dénk réew mi rek après nekk ay jàmm toog di leen seetaan ngeen dawal lu leen neex ba tax na tey jii sénégalais bu waroo bu bu waroo ak yéen xalaat rek baaxul tekkiwul dara. sénégalais bu àndul a yéen gis-gis ci ni ngeen di doxalee réew mi rek ngeen bundu xataal ko ci réew mi wala ngeen jël ko dugal ko ci kaso bi laax ko jant bi ci ban réew la ñu nekk ngeen ne kenn du ko wax ci ban réew la nekk sénégalais yi ñoo mànkoo woon jël seen ay carte fal leen mais ceci n'est pas dit que yi ay jaam lañu dañuy topp seen ginnaaw looleen def noonu la ah nit ñi dañuy wuute xalaat ci démocratie la nek mais ku wuute ak yeen xalaat rek koku non non opposition la bok ku wuute ak xalaat ak yeen rek non non daf ñuy sonal dañ koy dóor ci kasso bi ku wuute xalaat ak yeen rek non non non ngeen gakkal deram il faut arrêter moomu leen réew mi moomu leen nit ñi aussi il faut qu'on se respecte dans ce pays ngeen jox nit ñi cër nit ñi delloo leen cër boobu fii koo fi respecté mu respecté la ku la respecté wul bul ko respecté foofu la ñu toll ci réew mi. à la limite boo toogee ngay xool dafay mel ni mais ñii réew mi dafa wadd ci asamaan ñu capté ko rek def ko seen moomeelu bopp te réew mi tàmbali bu kenn xamul ku nekk jaar fi. jiite réew mi ba mu ayam jeex mu dem non non ngeen ne yéen daal seen ay moom walla waaw ku wuute ak xalaat yéen rek moom moom musiba day xëpp ci kawam walla dangeen ngeen koy jébaane ci réew ci ci ci ci ci ci ci ci àdduna bi il faut arrêter Pape Alé bi mu tàmbalee ba léegi wax leen rek kan lan la mës def lo xamantene dudul combat de principe mais combat de principe bobu bi ande ak yéen en 2011 ñu leen di xatal di leen xoññañal ci réew mi mais bobu d'accord ngeen d' ngeen ne journaliste la mais bi ngeen jëlee réew mi def naka solo nonu mu wuute ak yéen xalat ah là il n'est plus journaliste là c'est un militant C'est parce que li muy wax arrangé wu C'est parce que position yi mi jël arrangé wu leen loolu mooy malhonnêteté intellectuelle xam nga nit ak lu mën a xew ci àdduna dangay fexe am posture bu responsable nga gore nga seedeel nit nit même boo d'accordul ak moom ci doxalinam seedeel ko jikkoom nit même boo d'accordul moom ci ni muy gisee ak ni ngay gisee mais ci démocratie lañ nekk ku ne ku ne am na l'attitude gisee noo xamante ne dafay du méngoo ak sa moroom ni muy gisee mais ceci ne ceci ne ne signifie pas que nit koku da ngeen ko wara tam dem wala da ngeen wala jeter du discrédit sur lui ci ko xamantene xamone xamoon nga ko démb ngeen di jëflante position bi mu am tay arrangé wu la nga ne non comme position bi mu am arrangé wu ma te man xam nga position bi ma nek ni moy position bu confortable bi parce que sama poste lay xol non foog ma dor ci ko mais papa Alé du ku ñuy dóor ci kawam di jàll de. li ma la woon wax sànq laa leen wax li ma leen di jox ni entrée bi la plat de résistance bi ak dessert bi avec la petit café qui a qui va avec bis bu génnee nga jot ko yow ak sa morom dama ne réew mi sénégalais yi nañu delloo si waat seen xel xam ne liy nekk di xew ci réew mi bu fekkee da ngeen koy xoolee benn bët bisi ngi ñëw ci kanam ngeen bëgge koo xoole ñaari bët mu tëleen parce que nag mënuñu nekk ci réew moo xamante ne ay nit ñoo ko jiite ku wuute ak xalaat ak ñoom bu ñu la mën a xëcc bu ñu la bu a xëcc ci seen wàll jël la toroxal la loolu day jeex ci réew mi ah te loolu nag sénégalais yéen yéen a ko mën a jeexal ci réew mi Il y a am cartes ay carte électeur yéen des ay fal yéen ay folli ku len neex moy falu ci rewmi ku neexul du falu ci rewmi djel responsabilités ay responsabilité face à cette énième forfaiture ñu jël justice bo xamantene dañ ko fiy tek ko xamantene arrangé lu len ñu ko sénégalais nous avons jël responsabilités. responsabilité encore une fois je may wax dit man pendant 20 ans ou bien 22 ans dans la presse sénégalaise Quel musuma dégg ci ay mbiram musuma laal musuma été à part may ak de ci mais mbir buñu jappé nit bu ko jaay doole ci lu teguwul ci yoon te yow ngay xéxal ñeneen ño xamante ne amook ñoom relation ci dañ leen ni jaay doole yitte la ak farata nga taxaw ci loolu la nek man parce que encore une fois justice justice yable yëpp la war mais nag na fekk ne bu ñu lay sosal wala bu ñu lay waxal dara na doon loo xamante ne lu dëggu la na doon loo xamante ne lu jaar ci yoon la bañ a nekk ci jaay doole. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk dañuy faral di wax na benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mais bopp boobu xar nañ ko en quatre parties bu yàgg a yàgg a yàgg. parce que bu ñu demee ba toll ci réew mi foo xamante ne nit mënut a am dëggam téye ko mu leer ko ne dëggam la ñu salfaañi dëgg googu jaay ko doole c'est parce que rek dafa wute ak ñoom xalaat l'heure est extrêmement grave pour dikkaat nag ci li nga xamante ne moom moo ñu taxoon a jóg mooy tontu ki nga xamante ne moo di Moustapha Diakhaté liñ ci wax duñ ci dellu ci waat dama ne boo dem mag di muskallaf nekk ci réew mi am fi njaboot am fi ay doom da ngay fexe nga respecté sa bopp respecté sa bopp mi ngi tàmbalee ngay wax dëgg ngay wax lu nit dul weddi beneen bi ci tegu mooy nga fexe góorgóorlu ba li ngay séq ak gor yi mel ni yow liñ ci xam ci dëgg bu jotee nga am courage taxaw wax ko te faté position ce pays là n'a pas commencé en 2012 te du jeex 2024 il faut que ça soit très clair réew mi jeex wul 2012 te du jeex 2024 que ça soit très clair c'est pas parce que da nga yor nguur ko lu neex ngay def c'est pas parce que da nga yor justice ko lu la neex ngay def Et nous allons continuer. parce que tout simplement dafa bari loo xamante ne day xew ci réew mi injustice nit ñi toog di seetaan les sénégalais prenez vos responsabilités le vrai pouvoir se trouve entre les mains du peuple Moi, c'est une carte électorale. Prenez vos responsabilités. Faites ce que vous avez à faire. que nga combat bii nii du combat wu Pape aller. attention wala ma Samba wala ma Demba attention faut que ce soit très clair combat la vous nga xamante il dañ pour l'injustice dans ce pays là injustice c'est ce que vous avez à faire. ana ñi nga xamante ne of OFNAC moo la épinglé ci ay milliards mais ñi ngi doxi seen soxla Pape ale satchul xalalu alalu askan wi de ba tax mu dem ci kasso bi jàppuñu ñuko ci naka sodul non de ba tax mu dem ci kasso bi ñi rapport nak noir sur blanc écrit bind mu leer ñooñu anañu promotion lañ am nek ay DG ak ay ministre lolu moy xew ci kumba am nday ak kuma amul nday bo faré ak nguur lula neex def bo faré ak nguur mën nga togn bo faré ak nguur mën nga jëllo momul bo faré ak nguur mën nga def naka sodul non mais du mujj fan ci yow de ndax da nga far ak nguur mais bo xalat ak nguur sondel sax boko ci boutique yow rebeus ngay sondel ngeen defe ne noonu la réew war a doxee ngeen defe ne noonu la ñu war a fonctionner et puis bu ñu jógee nit ñi di wër plateau télévision di tëgg ci seen gémmiñ naan nous sommes dans un état de droit loolu mooy état de droit il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête li ma waxoon ci Moustapha Diakhaté nag ci tàmbali dama koy maintenir léegi mu leeraat tu es libre dem ci plateau télévision bu la neex tu es libre dem ci site internet bu la neex wax ci pap Alé mais dama lay xamal ben affaire mu leer bo waxe ci mom ngoon bë suba ngoon mang sa kaw bu dee la goudi mang sa kaw parce que fofu la rew mi toll. et vous pensez que pap Alé amul njabot ci rew mi wala amul soxna wala amul ay dom et vous vous permettez de de jeter du discrédit sur la personne comme ça Pape Alé ëbbu leen ko judd ci rew mi. njabot la am ci rew mi am fi nday am fi bay bokul ci ñi ngeen di saga muy jall de bokul ci ñi ngeen di saga muy jall ku wax naka sa dul noonu bu fekke suba la ma la sa kaw fof la rew mi toll momu len nit ñi il faut que ce pays là les gens se respectent nit ñi respectante wigante joxante cieur ma bëggoon nak teunk jéxal ci lu am solo lo xamante tamit ñu ngi koy wajjal comme ni ngeen ko xamé ci ayu bi ñu génné ci Paris am nañ manifestation bu mag devant le siège de Mediapart mu nek ay journalistes d'investigation ñu rañé ci bitim réew bu ñu noppee ci loolu def nañ li nga xamante bi mom modi remettre un memorandum Media Park loolu ben action la woon bu samedi jëm le 19 novembre. Euh, dinañu nekkaat Paris. Cette fois-ci ce sera à la place. de la République à la place de la République